bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ginnaaw bu ñu leen ziyaaree nuyu leen noo ngi ñëw ci sunu waxtaan wi nga xam ne li ko sa tax a jóg mooy li li xew tey li xew tey nag mooy lii xew ci senegal di mbiru góor jigéen àddina yëpp daanaka di ko coow ci Facebook yi eh, ci internet bi fum ci mën a nekk nga xam ni tey wax naa ni ñoom bokk nañ ci ñi nga xam ne eh, ni ñu gaawe ak ni ñu mën a waxee ak ni ñu mën a siiwalee mbir ku ko xam ku nekk da nga moytu da nga da nga jéem a moytu ci àddina bu baax a baax li nu tax a wax nag te mu war waxuma la jullit waaye nit ku ne ndax day lool yàqu-yàqu la boo xam ni euh, ña ca biir euh, ñoom ci seen bopp xam nañ ni yàqu-yàqu la waaye léeg-léeg yàqu-yàqu bi day dem ba da di daleen leen di da di jàpp ba nga xam ni manam kuy lap lay doon ci ñom rek bo leen bëggee xëtti li ñu jàppale fe nga fekk leen ci biir mu melni li xew moy mbiru goor jigen yi nga xam wër wi kenn ku ne xam ni ñaar seeni ñaari information ci Oxford euh, ma ngi ma ngi fi Sénégal malgré bu fekkee ni nanguñ ko ñong leen koy publicité waaw ñaara ngi nonu mu di Oxford balé ak ñi nga xam ne ñooy waa kër Waly sekk muy Waly sekk ak ak ak ay xaritam sax laay wax parce que xarit yi a ngi génn ñëpp a ngi génn di wax way juróom génn na man nag damay wax rek ni Waly Baye rek lañ mën a doon ci moom ndax ceekeen yi eh, xëy na mën nañoo bañ a jegente waaye eh, mën nañoo doon ndijaayam way juróom wu jigéen mën naa koo seedeel ci waxtaan wu ñu doon waxtaan ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu daanu ca ba yéem ma lool loolu nag bu fekkee ni yàlla dafa dogal nga am ko ci sa xol eh, na ngay xool fépp foo mën a ne sa njaboot sàmm leen ba alali àdduna ak yi xew ci mën a doon na nga ko wax muy garder dignité su garder dignité am ba pare na nga ko wax nay nay xool fi muy teg tànkam parce que Eh, loolu la ñu naan am na am na famille yooyu boo ca bokkee da ngaa war a xam da war a xool fi ngay teg sa tànk du rekk ni xale la dañ koy bàyyi mu dem dañ koy bàyyi mu mu muy def ni ko neex dañ koy bàyyi muy doxal ni ko neex te it wax jigul bant wax jigul bant dafay dafay yàq lu bari xale eh, Wally mënut a doon xale ci Sénégal eh, daanaka ñeent fukki atam matagul at mu ne ñu ngëwtu ngëwteeku ci gone gu ndaw soo bëggee gudd fan. bëgg a mucc na nga moytu ci lam na ci làmmiñu nit léeg-léeg nag euh, xam nga daa am ku dal ci musiba ak ki musiba dal waaw dafa am koo xam ni moom mooy dox ba dal ci musiba ak ki nga xam ni musibaa ko dal yooyu day am kii musiba dal néegam lay toog du génn du wax du def dara musiba fekk ko fa mu nekk mu dal ci kawam loolu nattu lañ koy tudde waaye am na koo xam ne mooy dox ba fekk musiba fa mu nekk mu jàpp njàmburam mu dal ci kaw musiba te du xam sax ni ci musiba la dal loolu nag ñoo koy conseillé yaayam mi nga xamni ku bëgg yonent bi la ne no eh, no am luñ ci rañi parce que loolu lañ ko mëna sédel euh way juróom wu itam aman ay cadeau yu wër ci dëgg yu mu daan wax gis nga ko eh, gis nga nit ñi actuellement wër nga goor goor lu ci sa biographie ba do am tâche même buñ la tooñee wa eh, li ñuy wax casier judiciaire nit nit da ko wara sam ci bopam ba nga xamni lepp luñ lay takalé ku ñuy jiiñ ndëmb doo soccee yee yeeli waaw wolof Njaay da koy lépp day wax ni ku ñuy jiiñ ak ndëmb waroo soccoo yee yeele liir loolu nag bu bu fekkee ne dafay am te ngay xaleel am ay waajur am ay ay ay ñu la sopp am nooy taxawee bokk ci kër parce que dégg naa ci sunu xarit ci imaam yi sax ñu interpellé sëriñam bu ñu interpellé sëriñam dañuy daal di tuddaale ki nga xam ni mooy Cheikh Bamba mi mu nii moom la gëm Cheikh Rafal mi nga xam ni moom la waali fu mu toog ma ngi wax ni Cheikh Rafal la gëm moom Baye la. mais Baye Fall dafa am nu mu war a mel am loo xam ne da ko du ko def am loo xam ne da ko war a moytu am loo xam ne da ko war a teg ne le même alali àdduna bu mu la jaral sax nga nga nga dal ci musiba waaw même boo ko xamul te it sëriñam xam naa ko bu baax muy Cheikh Abdou Fall Cheikh Abdourahmane Fall ci laa la imaam wax na ko Cheikh Fall la gëm nee na Cheikh Abdourahmane Fall ci laa